xam nga ñun bi ñu ñëwee politique dañu ñëw indi benn principe mooy du ñu def politique politicienne. xam nga politique politicienne mooy lan ma jàpp ni population bi yëpp fii lañ bëgg a dem ma ànd fa aveuglément nous on s'est di quand même on va rester ferme et droit devant de, dans nos mm-hmm. bu ñuy jël décision dañuy jàpp ni décision bi moo gën ci askan wi à l'instant te ñu ànd ak moom donc quand on est allé avec Idrissa Seck c'est pas parce que pour les beaux yeux de Idrissa naam c'est un homme hmm. lu taxoon aussi ñu ànd ak moom mooy que c'était le juste milieu parce que nekkul au pouvoir oui, en réalité nekkul aussi aussi hmm. euh, donc bi ñu defee suñuy arbitrage ak base bi on a jugé que c'était le meilleur choix du moment programme bi méngoo na ak ñun li ñu doon wut te nangu na ci incorporer ñun ci suñuy idées yi ñu amoon en tant que candidat mu nangu ñu dugal ko ci hmm. ba pare on a jugé aussi que Idrissa Seck malgré lu ñu ko mën a waxal yëpp je ne suis pas là pour lui faire euh, euh, pour lui jeter des fleurs euh, am na un passif politique boo xam ne nit ñi am na lu ñu ko ci mere am na ñu ñu ko ci ñaw mm-hmm. waaye ñun bi ñu koy jël di ànd ak moom programme am la ñu ànd ak moom te jàppoon nañ ni il a aussi les les épaules assez larges mm-hmm. pour pouvoir diriger le pays mm-hmm. maintenant sénégalais yi ñooy décider sénégalais yi xëy na ils ont voulu sanctionner toute la classe politique qui est là te Idrissa Seck bu ñu àndoon ak moom aussi ce serait des ruptures pas rupture parce que c'est Idrissa Seck mais rupture programmatique parce que lii am solo ba am solo mooy lii sénégalais yi bëgg ñu changer ko rupture yooyu réforme yooyu ñoo ñu ñu ñu ñu def ko te à la limite man bëgguma sax utiliser terme rupture mhm. parce que rupture c'est très abrupt ouais, c'est cassé c'est mhm. alors que mois j'aurais préféré réforme parce que ñaari mbir moo am mhm. continuité wala réforme continuité mooy nga bàyyi woon fi ñoom Amadou Ba ak le système avec toutes ces choses la réforme mooy ci biir réforme nag mën nga def rupture mhm. nga jël par exemple candidat Idrissa Seck pare sur les bourses familiales newul woon day def rupture dafa ne woon daf koy yokk wala mu rationali daf koy hmm. améliorer mais même ñi fi nekk nii aussi c'est un peu ce qu'ils disent c'est à peu près ce qu'ils disent avant le discours moo nekkoon rupture mais maintenant une fois affaires moo tax ma ne la <laughs> euh, réforme est le terme le plus approprié ci biir réforme am nga ñetti R encore mhm. mën nga def rupture parce que am na yoo xam ne par exemple tout ce qui est corruption et autres ay rupture nga ciy def mhm. mais bu benn R bi mooy rupture beneen R bi mooy rationalisation am na fi loo xam ni doo ko yàq. mais mhm. danga koy rationaliser. am na loo xam ne danga koy réorienter mooy troisième R bi ni ñu koy defee mën nañ ko defee neneen bu gën. Mhm. donc entre parenthèses juste pour dire que entre rupture ak continuité. je préfère réformer continuité ñun bii ñuy dugg ci politique dañu choisir réforme. Ah,